Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen dalal jàmm ci seen télévision Equivox TV ci seen biir émission Vox Arena euh, boo leen ma gisee ma toog ak euh, champion bi nga xamante ne kenn dootu ko présenté ci làmb muy Franc nga xamante ne mu ngi jógee euh, euh, ci benn victoire bu am am solo diggante mag euh, ki nga xamante ne mooy Bébé Saloum moom laa dalal tey seet si ko tey fas yéene waxtaan ak moom ci lu yaatu yaatu champion maa waaw Cheikh maa ngi lay delloo ziar waaw xam nga di ziar ñëpp di bëggee ñëpp quoi. seet si la tey ma dégg ay rumeur hmm, champion gannaaw bi nga jógee ci ndam lu am am solo ci Bébé Saloum nga def ko benn voyage. mais combat boobu lan moo tax nga waaxu sa waay. du waaxu sax xam nga rek moom dañoo nekk ci gox xam nga gox boo xam ne yow yaa ma gën a xam gox bi sax ñoom gëmuñu dara lu làmb xam nga aussi tamit am pas làmb sax nekkul làmb lañ gën a gëm sax mais ay sportif ñoo fa nekk grand bu ci daj ak yow da lay wax te booy del def nii di la conseil di la xelal lépp lu baax mu def mu mu mu teg la ci yoon boobu quoi si xam ne buñ ñëwee rek. yàlla sutural ñu may ñu ndam ci kaw waaju ko bi biñ ci jógee ba tey gars yi ñu ngi doon évoqué sa ay làmb gars yaa ngi tudd sa komba ak ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 bi nga xamante ne dafa daan barki Dembo Ndiaye sa doomu ndey ah, euh, muy Goro Sock gars yi ngi wax sa yeneen combat ñu ngi maa ngi fi doon dégg sa combat ki nga xamante ne moom mooy Jordan mais fan yi maa ngi dégg gars yi ñu ngi dox sa combat ki nga xamante ne moom mooy Tyson 2 bu Ndaayaan ndax am nga ci écho waaw ni nga koy déggee noonu laa koy déggee quoi parce que làmb moom làmb comme ni ko gars yi di waxee rek làmb day xëy rek taxaw comprendre nga aussi tamit ñu ñu ngi nekk suñu yoon di liggéey di dem ci kaw comprendre nga Tyson 2 tamit di champion man su ma gisee avance bi dama koy jël. Tyson 2 si parce que Tyson 2 mbër la champion la man may bëgg a bëri mbër yoo xam ne ñoom la gars yi di fi coow. loolu loolu daf may neex quoi. Franc de dafa dugg deux fois parcelle daan fa garga 2 ñu ne déet waay nga ànd ak sa waay ci benn tàkkusaan <clears throat> ngay bëre muy bëre moom it muy euh, góor a mu daan góor a ci jël bu bu doy war yow ah, man xale laa te làmb soxla na ma man bëre mooy suma métier man bu ñu ma joxee avance Tyson 2 te jëluma ko man. kon mën naa jaaroon teg sama ngemb dem xooy leneen champion la nag champion bu qualifié la macha allah mu nekk champion d'Afrique aussi jaar équipe nationale moom moo fa njëkk dem nag man dem naa fa waaye moom moo fa njëkk dem dem toj ko waaye nag bu su combat bi taxawee Cheikh Oumar dina xam ne li ma fa mujjee jëlee. ak moom lu mu fa jëlee baaxul de. yu yu bees yi maa ko fa mujj jëlee yoo xam ne moom la gars yi soxla actuellement yooyu moo xew yooyu maa ko dem maa mujjee jëlee. pas màgget màgget daa màgg mu nekk màgget carrière am jeexagul bis bu carrière am jeexee mun na nekk màgget ñun sax ku ne loolu ñaan yàlla quoi si. Tyson de li mu def parcelle jàpp nga ne bu la jëlee dafay dafay stoppé wu wala fii lay fii lay jaaree bàyyi waa parcelle. non loolu nañu bàyyi ba si kanam quoi ba affaire bi taxaw ñu leen si xam dara incha allah. man moom. wala li mu def li mu def góor a soog moo la neexul. non du question de loolu parce bëre bëre la rek mën na daan moom war na mën a daan Goro Sock parce que champion la war na mën a daan keneen tamit ku Goro Sock champion la nit moom ak lu mu métti métti da nga koy nangul ay qualité am comme ran nga champion la dañ koy nangul champion la mais bi su ma jëlee day daj dëgg. nga waaw waaw day daj dëgg munta a ñàkk. yow gis nañu buy bëree day waaxu seen advers euh, adversaire am yi di leen dóor balaa ñoo réagir mu wër leen dëpp leen quoi. yow rag yooyu yëpp sóoroo ko non loolu yëpp ay liggéey lay doon rek xam nga boo dëkk boo dëkkee parcelle moom foo nga xam ne soo la champion yëpp nekk daanaka champion yu bari fa lañ ne xam nga bu ne dina la si yot ne la defal lii ak lii yooyu noonu quoi après ñu nekk ci kii yooyu noonu voie ñu gis ni làmb ji xaw na euh, taxaw ndax Covid 19 bi aussi euh, ñuy masawu ñëpp euh, ñi nga xamante ne loru nañ ci waaye également ñu ngi dégg ay rumeur ci suuf ñu ngi dégg ay gala ñu ngi dégg ñu ne am na Gaston mu ngi yëngal ay gala ndax yow jot nañ la cee woo wala. waaw affaire yi moom xam ma comme ni nga koy déggee wala keneen ni mu koy déggee noonu laa koy déggee mais xam nga ñun actuellement ñun dañoo bokk nañ ci làmb ñun bu ñu ñëwee suñu ñëwee fecc mu neex bu ñu bëree mu neex xam ma xëy na tamit ñoom ñu ngi ci quoi xam nga waaw waaw ñoom ñu ngi ci xam nga ñu ngi koy ñu am na tamit fu ñu war a jaar bu ñu bëggee affaire yi taxaw mhm. aussi tamit fi nga ñëw léegi foofu laa waroon njëkkee sax xam ma ci Covid bi. di ñaan yàlla yàlla na mbas bi yàlla na ko suñu borom fànq daal ba mu demaat mu dégager ko quoi parce que métti na trop mais suñu borom moo ko wàccee waaw kenn mënu ci dara ne nañ ñaan yàlla rek yàlla su yàlla saafara ko mu dem daal. alors ñu gis ni grand contre petit gars yaa ngi koy wax hmm, ñu ngi koy wax yaa ngi dégg combat yi nga xamante ne ñu ngi naan Père Gaston bëgg na ko euh, mais yow grand contre boobu yow jàpp nga ne lu logique la wala. si dafa logique kay parce que. ñu ñu fi wax grand yi ñooñu daa am ñeneen ñu fu ñu fekkoon ñooñu bula la neexoon du ñu bëri ñoom tey jii xam nga la mais tey jii gars yi war nañu mën a bëre seen biir affaire yi làmb neex noonu. ñu may booy chance loolu rek affaire yi mën a làmb ji xaw a comme ni ko ñëpp di waxee rek comme ak aussi comme ni ko ñëpp sentiré mm-hmm. pour làmb ji xaw a amaat beneen ampleur war na mën a nekk quoi neex aussi. mais ñoom Franc classe gi ñu nekk est-ce que teelul trop ñu leen di wax yéen ak ay ñoom tafaati nag. yéen ak ay ñoom ay ñoom Balla Gaye mais loolu est-ce teelul tey bu ma déggee Reug Reug Tapha Tine est-ce que teelul non luy te parce que góor de seexuma daal dama doon dégg benn technicien naan góor bu xasee ba mot quatre-vingt-dix kilos sax mutuma ñu ngi macha allah ah, wax gars yi ñu posé ay cent cent vingt xam nga waaw pare am nañ doole mun nañ bëre aussi yooyu kiiwul yaa ma gën a xam boo jugee ñëpp jug jàppale la yooyu moom jàpp nañu ne teel na quoi. làmb la rek aussi. donc gars yi jël quoi. ah gars yi waaw dañoo war a bëre mu neex dañoo war a bëre loolu la ñëpp sentir fu mu toll nii képp koo xam ne day dund làmb bu toogee moom lu muy sentir xale yi ak mag ñi dañoo war a bëre soit soit mag xale yi génne leen fi soit mag ñi kiiwaat leen ba ñu wàccaat suufa suuf rek loolu kese la. si noo gisee noo gisee CNG beeg coow li nga xamante ne mu ngi koy wër gars yi ngi naan nañu dem nañu toog yow en tant que champion nekk ci làmb ji noo gisee. waa affaire yi moom xam nga coow yàgg naa am ci làmb mais dañu waxtaanaan rek gérer affaire yi mu rafet parce que ku nekk ci nguur defe naa fii ak ay su ma jumul vingt quatre ans xaw ma vingt cinq ans kooku tamit jar na ñu jox ko chapeau parce que làmb si nga nu menoon ak làmb léegi làmb wute na mais tamit nañu waxtaanal bu ñu waxtaanee mën nañ gisaat beneen solution boo xam ne moo gën a rafet yi fi jot a romb ñu indiwaat ko comme ran nga léegi ñu xaja ci ñëpp quoi pour man nekkul kenn mooy yor mbir yi naan da koy téye en mais moom dong wala di jaar fee ñun ñëpp ñu booloo xalaat bu rafet ñu def ko ci làmb làmb mun a dépassé fii nii loolu kat moo fi nekk Cheikh. moo gën xulóog bi ak ñaayo bi amul njëriñ. benn moo rek ci combat euh, ki nga xamante ne mooy Papa ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu. waaw xanaa di ñaan Papa Sow yàlla may ko ndam rek parce que ñoom tamit aussi affaire yi métti na ci ñoom xam nga. waaw promoteur bi xëy na sax xam mooy loolu ko Pape Abdou Fall sama père la joxal mbër yi dara son nañ trop nag <laughs> mooy loolu. oui mais Poisson yàlla na ko yàlla may ndama ah. grand bu baax la xam nga man du ma taay di wax ci moom daal. waaw moom xam na man xam naa. mu ngi bëri xale bu xale bu am doole bu mën bëre bu gaaw te mën xeex. waaw Siteu champion la parce que bu doon loolu champion du bëre Papa Sow mm. waaw comme Papa Sow tamit. xam na fu mu jugee xam na dem combat fu mu ko mën a yóbbu waaw moom ci lu mu war a nekk muy ci quoi. mu bu baax xanaa lu si des moom ñu taalal yàlla suñu loxo rek yàlla may ko ndam incha allah. lay gërëm di la remercier. merci beaucoup ok jaajëf yow kontaan naa ci yow di la bëggee yàgg sa caméraman bi ah jàmm ci yéen. Abdou Sibla na diggante Franc Bébé Saloum dimanche 8 mars fere bébé Franc ah bébé Saloum day xeex ak Franc wala Franc wàcc na Franc jàpp ko la bëgg Franc day ñëw Franc Franc day ñëw bébé Saloum Franc na may tu door ku ñu jiwat loog moom moom bébé Saloum ndax Franc jàpp bëre la bëgg Franc Bébé Saloum day xeex moom Bébé Saloum day xeex ak Franc jàpp na ko jàpp na ko lamb ji jeex wala jaaxu la ah kot daan ko doole doole baajo bi. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.